tàng tàng xalaas bu tàng. waaw tàng jër. waaw yakkal. waa jaa suuf mi yakkal yakkal. waa ji yeggagul fa mu jëm. yakkal yakkal. déglu ko. commune Golf la. dañoo am foofu noonu benn magasin. di indi ay conteneur di liggéey. comprendre mais dafa am loo xam ne day day day day day am foofu loo xam ne lu doy waar la. parce que dañuy toog ay agent municipal ñëw di ñu fekk ba suñu biir place. di ñu brutaliser. di ñu di ñu di ñu bunduxatal te ñun li ñu war a fay yëpp ñu ngi koy fay ñu ngi fay suñu impôt di fay suñuy OVP di fay suñuy ODP mais nag démb li ma dund mooy dañoo wàccee woon benn conteneur bu yàggul semaine passée euh, ñu ngi bi mi ngi wàcc vendredi conteneur bi bu mu wàccee vendredi benn agent mairie ñëw mais agent bi moom da daan ñëw conteneur bu daan wàcc da daan ñëw par exemple nii ma koy jox ay dix mille francs affaire yooyu noonu mais du ma am kayit ba waa ji may liggéeyal nag à l'extérieur waa ji nee ma lépp lu may liggéey foofu noonu naay am reçu parce que tamit affaire comptabilité la moom bu ñëwee dama koy présenter reçu comprendre mu ne conteneur su ma fayee droit de stationnement su ñëwee dama koy présenter reçu comprendre noonu noonu ñoo am fa ñaari yeneen ñaari conteneur yu ñëw wàcc conteneur bi mu ñëwee waaye ñëw taxaw ma ne ko ah man de fu mu toll nii moom defaral ma déclaration parce que ki may liggéeyal nee na ma léegi man au niveau du trésor laay dem di fay ki may liggéeyal moom mi ngi basé wu en Europe. léegi moo la wax bu gars yi ñëwatee bu leen jox xaalis pour ñu gëmm seen bët mais nañ lay defal déclaration. déclaration nga dem trésor fay. fay foofu am sama am sama quittance comme nii. léegi yow di 5000 nga leen daan jox ak 10 000. waaw bu dee trésor c' est 36 000 et quelque. 36 000. mais yow waa ji préféré fay 36 000 moo ko gën a. waaw mu dem trésor que muy neexal gars yi. voilà ah, léegi bi conteneur bi ñëwee vendredi. waaw léegi conteneur bi ñëw agent bi ñëw. Mhm. ma ne ko defal déclaration mu bind déclaration bi. 36 000 mi ngi nii comprendre mhm. bi mu bindee déclaration bi mi ngi ko bind euh, vendredi mhm. mu ne ma lundi nga dem fay ko mhm. mais xam nga ak liggéeyu conteneur nu mu mel léegi lundi bi man aw ma temps parce que maa ngi si liggéey bi nekk ci livraison yeeg clients yeeg affaire yooyu noonu comprendre man daal dama toog surprise bi ma am jékki-jékki démb ñu ñëw foofu nekk au nombre de huit personnes ànd ak benn ASP ñëw dugg ci biir place bi yàlla def sax man ki may liggéeyal nekk foofu ci biir bureau bi gars yi ñëw dugg ànd ak ASP ñëw nee ma fay trent fay 36000 léegi léegi wala ñu tëj magasin bi ma ne leen magasin bi kenn du ko tëj 36000 baa ngi nii liquide a ngi nii mais damay dem trésor da ngeen may may une minute ma dem trésor fay ko foofu noonu mais kenn du tëj magasin bi parce que am naa xaalis bu ma fayee. dañoo bëggoon ma jox leen 36000 sur le 100. te man au niveau du trésor légui fofu la décidé pour fayé benn way djéki djéki fële rek ben agent djéki djéki djogé ci mbéd bi ñew né lan la lan la c'est quoi le problème kërëb kërëb day fay wala ñu tëj place bi ma ko place bi tay ku koy tëj di nga tëj sama bakken ba paré soog a place bi waa ji ne waa rek néma kon maay jël sa bakken ci biir bureau bi sama biir bureau mu dóor ma crochet ci biir bureau bi mom agent mom agent municipal bi ci biir bureau bi devant ay témoins mu dóor ma crochet bu may xoolal sama loxo bi daf ma gaañ nii mhm. may tourné di ut lu ma ko xaañ ay gaayam téye ma mu génn nee ma yow sax xaaral day yomb yow commandant bi sax laay wo dem taxaw ci biti jël téléphone am nee ma commandant bi sax laay woo yow yow yow xaaral moom agent municipal bi. léegi man ma génn ni ma génnee noonu taal sama scooter romb parce que moom wax naa ko ne man damay dem ci yoon ak yow pour moom moom police balaa jëm police golf balaa jëm fekk man dem naa trésor ba gisee vraiment seen kilifa yi ay nit yu am yar gars yi nekk ci bureau yi. ñoom ñoo gën a am yar gën a am dignité sax ni ñi ñuy gars yi nekk ci tali bi ñi nekk ci tali bi moom comme ay mala ma dem gis ak seen chef seen supérieur waa ji accueillir ma franchement ñu toog bureau ma explique ko situation bi léegi nag balaa dara di xew aussi comme c'est yéen seen njiit te man mosuma am yooyu damay ñëw fii fay ñu defaral ma sama quittance ma dem sama yoon seen supérieur bi nee ma noo vraiment defal ma parce que instant boobu yéegoon naa trop mu defal ma xam nga nee ma noo bàyyil noonu jox ma seen numéro affaire yooyu noonu defal ma nee ma bul def benn réaction dinaa ko lijjanti ma ne ko amul problème léegi affaire bi mi ngi xew entre treize heures le temps que may jógee treize bi di ñëw waa ji bëggoon jël tëj place bi ci boppam ñëw ci à l'espace de trente minutes ñu àndil ma benn plainte au niveau du commissariat de golf mm-hmm. plainte baa ngi nii mm-hmm. waa ji bëggoon tëj place bi ci boppam moom moo andi plainte bi le même jour ñu def plainte bi gis nga nii le vingt quatre septembre 2018 à dix sept heures mm-hmm. affaire bi mi ngi xew entre treize heures trente quatorze heures mhm. ñu bind plainte bi andil ma nee ma dix sept heures. nga wuy ji da ngay wuy ji. Mhm. ma ne amul problème parce que waa ji moom bu muy génn xam na ne man dama koy yóbbu ci yoon moom mu jiitu foofu. Mhm. ñu dem andil ma plainte bi ñu nee ma dix sept heures. te ñu nee ma bu may dem sax ki may liggéey laa àndal ma ne leen amul problème. dix sept heures jot sama waa ji boppam ki may liggéeyal ñu ànd dem ñu ngi ñu convoqué dix sept heures ñun seize heures quarante nañu foofu ñoom déjà ñëwuñu. commissaire bi tamit vraiment ma fekk fa benn commissaire boo xam ne commissaire bu ku respecté doomu aadama ku yëg doomu aadama aussi commissaire golf bi ku respecté doomu aadama ku yëg doomu aadama ma ñëw mu déglu ma mu déglu ma mu expliqué ko problème bi mu ne ma léegi il faut nga xaar euh, yeneen ki euh, agent mairie yi ñëw ma def confrontation bi. beneen partie bi beneen partie bi ñëw ñu def confrontation bi. ma ne ko amul problème ma génn toog comprendre léegi bu ñu génnee toog ñoom ñuy toog temps bi di dem temps bi di dem kenn si ñoom ñëwul. ñoom ñëwuñu commissaire bi déglu ma nee ma après demal ma ne ko nag lii man lii du ko bàyyi nii parce que kii ñëw fekk ma ba sama bërëbu liggéeyukaay dóor ma devant sama patron ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal foofu noonu ci biir sama liggéeyukaay nga xam ne ay ay millions moo fa nekk comprendre sama téléphone mi ngi nii dafa toj dañ ko toj mi ngi nii gis nga comprendre ma ne loolu lii duma ko bàyyi noonu commissaire bi nee ma daal loolu c'est ton droit le plus absolu dafa la neex léegi yow leen di porte plainte man waa mo moom waa ji ma dugg ñëw dóor ma foofu noonu moom dama ko dëpp kooku moom damay dem ak moom ci yoon